ma madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi ngeen jëf dal leen jàmm ci naafila yi guddi weeru koor yi seen site internet 24actu point com tey jii ci guddik fukkeel gi naafila gi doon ñeenti rakka rakka bu ci nekk ngeen war ci tari fatiha benn yoon waaye itam li nga xam moo di ayatul kursi yu benn yoon ina anzalnaahu fukki yoon ak ñaar ñu baamtu ko ñeenti rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon ina anzalnaahu fukki yoon ak ñaar ñeenti rakkaa nag moom mooy ñaari sëlmal jërë ngeen jëf bu subaa jaam riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi